final 120 kilos 20 heures 20 minutes stade Caroline Faye bu Mbour bu moo ñu wan ginnaaw Grand Yoff mbooloo ehe général Malika jàkkaarloog ñun ah eh lu mu eh, rëbb Libidor rëbb na ñaari loxo yi jógaat jàppante nañ ci kaw général Malika général Malika mu ngi ndax Libidor dana ko nangu di ñaar ñu xamante bëri nañ lu ñuy ñamante e ñu ngay ngàddante ci kaw la ilaha illallah ci waxtu woowee la la rëg-rëg di fecc ndeysaan attention Mohamed Bayo général Malika Libidor Abdoulaye Wilane Ndoye attention général Malika jël na ko jël na ko ah Libidor bañ na jàppante waat nañ ci kaw Libidor général Malika général Malika mu koy jéem a manœuvrer attention Libidor ah waaw waaw day am waaw ci Libidor looloy règlement passivité la dafay mel ni kale ko gën a actif eh Mohamed Baye ñu ginnaaw ñu gën ko am Malika di bëreel Fatick Ablaye Wilane Ndoye dëkk Thiès di bëreel waa Thiès 120 kilos di finale vingtième édition ah ah général Malika moom koy jéem a plaqué loolu bu continuer Libidor mën na am beneen avertissement bu fekkente ne résultat amul ñu ngi jàppante ci kaw ñu ngi jàppante ci kaw ñu ngi jàppante ci kaw lu mu nar xale bi da ko bëgg oñ da ko bëgg oñ laa ilaaha illallaah ay bi final jàppante nañu Libidor tànk càmmoñ la jiital général Malika kazalika noonu la mel attention bàyyante waat nañu ndax fii sàcc tànk xeju ca woon arbitre atte na leen eh Libidor am nga ñaar attention attention Libidor dafa mel ni loolu baaxul ci yow général Malika moo ëpp avantage ci kaw Libidor attention gis nga songoon nañu bàyyante waat jàppante nañ ci kaw jàppante nanu jàppante nanu mbokki Leewtoo professeur El Hadj Serigne ñu ngi yi nañ leen waa na jàppante nañu xale yi attention waa mbaaloox Ibra Sarr lan la mi-temps entraîneur ba ngay wax ak moom waaye li bi tam entraîneur am arbitre woote xam nga bu ñu bëree ñetti minutes dañ leen di atte ñu dem noppalu une minute ñëwaat bu ñu laalaatee ñett dara xewul ku ëppale avertissement pare nga arbitre sifflé vingt heures vingt quatre minutes fii ci Thiès fay Caroline Faye jàpp na ci kaw attention dañuy songoo di bàyyante waat duga gen la Libidor koy saxatal général a nga arrière lu mu nar ah Libidor Libidor ci kawam di bare waaye xale bi maîtriser na ko bàyyante waat nañu Libidor bu Grand Yoff mbooloo Général Malika Fatick Libidor Thiès Libidor sol na ko benn a ah, lu Malika am nga benn avertissement ndax dañoo ne Libidor bi ba moo gën a attaqué eh. ndax loolu en tout cas vingt heures vingt cinq minutes Libidor dem na songaat na ko ah général jàpp na moom tam mu ngay ñu ngay bëre xale yi nag ñu ngay bëre général bugul am yeneen ñaari avertissement bu amee ñaareel bi woorul ndax dañuy tembo ñoom ñaar waaye tam Libidor bugg ko bàyyi te amul avertissement Libidor mu nga wëndeeloog moom ndeysaan boo wattuwulee jàppante nañ ci kaw benn minute a leen dese sama xel ñaaw na ci avertissement boo wootuwul fa lay mujje ndeysaan Libidor am na ñaar général am benn avertissement te benn minute moo leen dese looloo waral boo wattuwulee bu temps bi jeexee nii ah Libidor day ñàkk looloo waral bëre bi metti ndax kii bugul am ñaareel bi waaye tam ka am bu sañoon kële am benn comme moom ñu temboo taxaw nanu jàppante jàppante bi yàgg na jàppante bi yàgg na arbitre dana ci dugg temps waaj a jeex Ah Eh Attention Mohamed Bayo moo ñu woon ginnaaw li bi doon jàkkaarloog nun tegante nañuy bopp jàppantey loxo li bi doon woon ginnaaw attention ah ay waay temps baa ngi jeex waay li bi doon ak général Malika ndax dañuy nul ndax dañuy gagné par point lu ma la waxoon Mohamed Bayo gagné na ko général jël na ndam li jël na drapeau chef de l'État général jël na drapeau gis nga muñ nga jël drapeau bi comme ni nga ko dige woon démb waaw santaat yàlla rek ginnaaw bañ sante yàlla julli ci nant bi di gërëm suñu ñaari waaju samay ñaari waaju di nuyu sama sëriñ si Ablaye Diop borom xaas di nuyu waa Malika bi yëpp di nuy waa Fatick ndax man maa ngi représenté Fatick di sant yàlla ndax yàlla moo ñu suturaal ñu jël ndam li xëy na suñuy morom lañ fi nekk looloon defuñu ndax suñu borom may ñu suñu borom a ñu suturaal ndax ñi ma gañe gënuma leen samay morom lañ samay adversaire lañ yàlla suturaal moom ma jël ko maa ngi koy sant yàlla di ñaan yàlla yàlla xeeb dolli waaw. waaw ci kaw. ci lamb maa ngi ñi ci kanam fa laa teg sama bët xale la làmb laa am lamb moo tax ma sacrifice wu lépp li ma doon def di suivre làmb man chaque jour entrainement laay def noo femme no fume y a pas de maladie de maladie j'ai travaillé pire dire xale laa damay entraînement lu métti barki Seydouna Mohamed dañuy dem ba dañ naan ma xanaa da ngaa dof mais lamb dama ko bëgg. déggoo li ma la wax man maa ngi fi pour ñëpp koo daan noo koy tëkkoo. tëkkuma kenn tëkkuma kenn ku ma làmb dëgg la ma la ku ma làmb booleel pare naa pour bëre moom am déet waaw kay maa ngi fi pour làmb di santaat yàlla di nuyu képp kuy bëggee général maa ngi lay sant sama fans yi sama soppe yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi di ñu bëggee damaa war a bëre si Mbour tournant chef de l'État ñi may ñi may àndal samay xarit waa Malika yëmbal benn bras Kër Massar ñëpp bàyyi seen lépp ñëw dooleel ma sama mafia bi ñi ma daan àndal Malika di entraîner mafia Talla Diop bi sama gars yi ñoom armée gars yëpp kan laay wax luy loolu kan wax man fi mu toll nii li nekk sama kanam mooy ñi si kanam awma lu may wax kenn dégg lu ma lax ñu képp ku ma làmb booleel pare naa pour bëre moom xale laa te làmb laa fi nekkal tëkkuwuma kenn laajuwuma kenn ku ma làmb booleel pare naa pour bëre moom am déet jërë ngeen jëf sant naa ñëpp moom moo jël troisième place moom la ñu jël noonu jox ko enveloppe trois millions ndeysaan san final bi la woon par équipe mooy équipe bi nga xam ne moom moo jël troisième place bi ndeysaan ndeysaan le ministre Omar moo leen di dugalal noonu ay médaille de bronze ndeysaan entraîneur ba jox nañ ko bosam kontaan na encadrement baa ngi noonu troisième l'équipe ndeysaan c'est l'équipe de Kaolack ah. Ndakaaru waa Ndakaaru ñoo jël deuxième place dëkkul ak daaw waaw waaw waaw ndeysaan dëkkul ak daaw waa Yoff waa Wokam waa Ngor Ndakaaru sama dëkk biram waa Pikine waa Thiaroye ñëpp Ndakaaru namu naa Ndakaaru ndeysaan ba ci Tëngéej sax ñoom ñoo jël deuxième place dëggantaan mais ils ont pas démérité déedéet xam nga des fois sport dafa laaj simplicité ndax athlète boo buggee Euh, di gañe saa su di def ay ay ay ay nga simple sport individuel moo laaj loolu simplicité. nga ci enveloppe bi moo am 3 millions. bébé dina noos xool ko dina noos biram ah, médaille d'or waa Thiès la ñu koy jox kooku di Sélémélé Sélémélé moo koy nangu ak fukki million ah kenn ku jox nañ li nga xam ne moom mooy saraya solal la ko dëggantaan waaye nag bokkut ak 10 millions ya waaw bokkut yi ah, ku nekk ak Ngomeen bu ci faxastaloo xaw ma fu mu jëm tey. biram liñ naan. xoolal jël na drapeau ba tàllal na loxo ya. ku wàññiwul da ngaa yokk. mais mais mais mais franchement CNG am na lu mu yokk ci drapeau bi ren. gis nañ ni euh, yokk nañ organisation yokku nañ raaya delloo nañ mbëri li ñu moom. ndax euh, euh, drapeau bi. tey euh, représentation écurie ñëw nañ gis nañ ay ay chef d'écurie ay ay mbër yu tee làmb ñëw bàkku ñëw wane ni dañ bokk ci làmb ku mel ni Balla Gaye Tyson hmm, Gris Bordeaux Bombardier waaw ñuy remercier nag euh, région de Mbour ndax région bi seen organisation amateur yi rafetlu nañ ko dëggantaan dañoo wuy si waaw mhm. waaw waaw dëggantaan xam nga ngay bëre ñu lay seetaan dafa neex ndax loolu mooy mooy cafka ci ci ci làmb amateur buy seetaan day bëgg day feeñ ci ñiy bëre l'hymne national du Sénégal ñu tàllal drapeau bi parce que c'est le drapeau du chef de l'État Macky Sall déggal la ilaha illallah